nan nga gisee làmb actuellement fi mu toll nii ñu doon wax ni euh, làmb ji mu ngi waaja ubbi saison bi le janvier làmb ji dina ubbi ñu jékki-jékki ne Sénégal day dem ci deuxième vague làmb ji fi mu toll nii daa mel ni seen gafaga fi toll nii boo làmbee doo ci fekk dara bu saar dara yoroo ko dara. <laughs> na waar de waa na waar de na moom wax dëgg yàlla ku la wax méttiwul waxu lu mu xam parce que ay jeunes nekk si dëkk yaakaar lu làmb. maanaam yow mënoo leen wax sax loo xamee jàpp nañ ci loo xamee leer na ne lii buñ ci àggee dinañ bëri ñu mën a fanaanoo loolu mais ñun dañu bàyyi noonu ci biir rek mi ngi mel ne daal koo jël tàbbal si lëndëm daal taalaloo ko dara quoi noonu la demee pour man quoi parce que waroon nañ ñu wax loo xam ne ni sax man nañ si jafandu bu ko defee ñu xam ne kat làmb ji weer bi lay tijji wala waaye ñun dañuy tërërër rek fi ne xamuñ fu ñuy taxaw mais loolu est-ce que du seen comportement yéen mbër yi ana seen président est-ce que yéen ngi dajaloo depuis bi feebar bi amee ba léegi. trouver benn terrain d'entente boo xam ne di ngeen ko mën a yóbbu ci ministre des sports. loolu nga wax moom mooy yoon mais ministre sport waru woon xaar loolu pour man. parce que yow boo jiitee ay nit. yow yow nga jiite ay nit. mu leer na la la mu leer na la yow kii nii yaa yaa jiite couleur bi couleur boobu yow yaa leen war a teg ci yoon. yaa leen war a wax li ñuy def pour man waroo xaar si ñoom ñuy ñuy dox doxu ñaxtu di ñëw ci yow yow yaa jiite. yaa jiite football yaa jiite làmb lu sport si Sénégal yow yaa ko jiite kon ñi nga xam ne da nga koo seex ak ñoom pour man war ngaa wax ak ñoom lu leer naañ teg ko seen loxo ñu téye mais waroo toog noonu rek quoi man moom wax dëgg yàlla loolu moom rafetlu ma ko.